waaw dañ nañ door mbokki Sénégal asalaamualeykum man président Ousmane Sonko ma dellusi fas yéene séq ak yéen waxtaan bu gàtt bi mujj xawoon naa gudd tuuti waaye lañ ca waroon wax moo ko jaroon di leen gërëm leen sant yéen ñi ñuy seetaan ñëpp di gërëmit suñu mbokk journaliste yi fi teew tey di doore sama wax ci ñaari wax yu am solo yoo xam ne benn boroom xam-xam bu ma seet si fan yooyu daf ma ko wax ne ma ci jamono jii nga toll ku la ne waroo wax danga war a noppi du sa mbokk ndax ñaka daan def ba wax bu jotee waxuñu toll nañ fu ñu bëggee wax mënuñoo wax bi ku la topp di la la j'ai confiance en la justice du sa mbokk ndax boobu foo koy wax day fekk mu am justice bu indépendante sutu nag bu dee dossier boo xam ne dafa am cëslaayu politique may yokk ci ni ñun de wóoluwuñu justice su waaye wóolu nañu ay magistraa ci biir justice senegal ndax lii histoire senegal Sénégal dafa biral ni musuñu fee gis dossier boo xam ne politique da cee fës justice àddu ci ci ñoo xam ne wute nag ni pouvoir exécutif mooy ni ki jiite réew mi bëggee soo amee it ay exception la moo tax ñu ne bëri na ñoo xam dañ naan il faut ñu wóolu justice ñun de wóoluñu justice te loolu dañ ko am firnde yu wóor yuñ ko teg waaye ci biir justice wóolu nañu ay magistrat ndax foo dem di fa gis ay nit ñoo xam dara mun leen këf dara mun leen yóbbu ñuy def waxtaan bi loolu ubbi la woon di ko jagleel sénégalais yépp waaye rawatina ñi nga xam ne nag dañuy suñu soppe ñu jaral leen lu bëree bëree bëree bëri waaye di ko yaatal nag ndax tool nañ foo xam ne sooy wax opinion bi yépp ngay waxal ñépp lay déglu ku la bëgg ak ku la bëggul ku ànd ak yow ak ku àndut ak yow ñu ciy sant yàlla nag bu ñu yàlla yóbbee ba foofu ndax juróomi at ci gannaaw rek wala juróom benni at ba ñuy door kenn xamuñu ci senegal di leen wax ni yéen sénégalais yi tey bu ñu toogee fii di waxtaan ak yéen Sen njàmbarte moo ñu ko may ñun parlu moo ñu ko may waaye seen jàpp bi ngeen jàpp ci suñu xeex moo ñu ko may ndax su dul woon loolu rek defe naa lundi huit def na léegi presque léegi mu def weer bu dul woon seen lundi jël Ousmane ne ko duma di waxtaan ak ñu di len ci sant ndax lolu qualité gu mag la te defé defé na Senegal, nañ ne Senegal, la ci Sénégal goulet la ci Sénégal nguur yëkëti li yëkëti bu ko soti ci nit ak ko munti doon mune li duma ko nangu parce que dañoo respecté wul samay droit nguur ga delu gannaaw ba lañu bëggoon def wul loolu nak jangat gu bari lañ ci jangat te ñu ñu jàmmarloo it jàngat gu bëri lañ ci jàngat mooy projet bii nga xam ne ñun moom la ñu andi présenté ko sénégalais yi ah am na fu mu toll sénégalais yooyu fu sore sore sore ba ndaw ñi mag ñi jigéen ñi def projet boobu seen projet bopp mu jaral leen ñu xeex wala ñu sacrifié wu may wax ni projet boobu du Ousmane Sonko. donte Ousmane Sonko amna ci solo ak fu mbir mi meuna mujj ak lu munti don. dafa am luñu ji te loolu meññ li ci des moy ñu meuna witti kon loolu kenn mënatu ko fay ci Sénégal motax ñun duñu dugg ci projet politique dañ ne du projet personnel du parti unipersonnel waye projet la bo xam ku patriotisme c'est-à-dire ku bëgg sa réew nekk sa dënn rek ku bëgg Afrique nekk sa dënn rek projet bi sa projet la seen taxawaay googu moo moo ñu may ñu nekk fii tey ba war a mën a wax ak sénégalais yi lu bëri am na waaye seen taxawaay boobu moo ñu may ba li tubaab di wax ni gañe nañu la premier manche mooy su doon match de football dañ naan premier mi bi gagné nañ ko ndax suñu amul woon loolu du ñu am jot gu ñu jàkkaarloog sénégalais di wax ak ñoom ba tey biir na ci bopp sénégalais yépp nag même ñu àndul ak ñun ñépp dëppoo nañ ni lii ab complot la suñu nangu woon ñu ta taftafee ñu noonu ñu ko bëggoon def kon du ñu egsi fii mu des nag naka lañu ñu war a doxalee li ñuy dëgmal ndax boo nekkee cib xeex jàkkaarloog ñoo xam ne foo natt doole seen doole weesu na ko ci xarala li ñu yor ci alal gu ñu yor ci li ñu yor ci ay service moo xam euh, euh, euh, administration moo xam police moo xam justice moo xam leneen ak leneen ñu téye ko seen loxo moo xam it lu ñu yor ci ay moyens yoo xam ne mun nañ koo jaarale ci ay nit ñoo ñu dem toogal di leen toogal leen di leen wax loo xam ne dañuy fexe ba nërmal xelu Sénégalais yi li ma ni wax yéen Sénégalais yéen a ma ko gën a xam soo jàmmarloog ñu mel noonu dafay laaj saa su ne étape boo tollu nga taxaw ma xool lu mu méngoog démarche parce que xeex bi doole dina ko gañe de waaye li koy gën a gañe mi ngi jóge ci xel xeltu boobu nag nga xam ne ñoo koy saxal te wéetuñu ci moo ñu andi ba ñu xool ni ñii ñu jàmmaar lool muy Macky Sall ak ñi mu ay taalibe mi muy yónni ñu koy defal lan mooy objectifam mooy lii lépp lan la ciy wut parce que loolu buñ ko leeralee rek lépp lu ñuy doxal ci xeex bi dinañu xam fuñ koy teg ma tontu ni ñoom dañoo amoon li tubaab bi wax objectif principal mooy dañu amoon lu leen tax a jóg loo xam ne mooy seen yitte bi gën a rëy yitte boobu mooy lan mooy fexe ba ala kulli xaal 2024 Ousmane Sonko du doon candidat élection présidentielle li may wax dafa am solo na ko ñëpp jàpp parce que suñu comprendrewul ñoom ni ñuy doxale rek dañuy bàyyi xeexu xeex bi am solo bi nekk ci xeex yu ndaw ndawaan yi lay seen mbébét ñoom la leen tax a jóg ak leen tax dugg ci lii lépp mooy nu ñuy fexe ba gàllankoor Ousmane Sonko ba 2024 fa ñuy taxawee di laaj réew mi moom du fa taxaw di ko laaj nañ ko defee woon ci gannaaw ak ñeneen muy Karim Wade ak xalifa sal loolu rek mooy objectif bi bu objectif boobu weesoo am na lu tubaab di wax objectif secondaire mooy loolu mooy seen farata ñoom am na peut-être sunna bu ci tegu mooy nañu fexe ba gàkkal ko ba tilimal ko ba sénégalais yi ne kii du nit bu baax ñaar yooyu mooy seen objectif bu njëkk ba nag moo leen gën a tere nelaw moo leen indi lii lépp boo xamee loolu nag ca doxalin bi ngay doxal da ngay fexe ba may leen ñoom lu leen yombalal loolu moo tax ñetti fan yi ñu jóge déglu naa ñëpp fu ne senegal nit woo fa fu ne senegal nit jóge na fa mu jaral ko léeg mu taal otoom wala def délégation wala bokk ak association wala parti politique am démb fii ci salle bi recevoir naa si waa opposition nga xam ne dañoo bokk ci FRN recevoir naa waa société civile ba ci tey la mujj ak ñoom Alioune Tine recevoir naa fi ay kilifa diine ñoom Mama Tar ñoom Abbé Jacques Seck recevoir naa fi euh, ay nit yoo xam ne bokkuñu ci benn kuréel waaye ñu senegal ñor la recevoir naa fi déglu naa fi wala woo nañ ma ci kilifa diine réew mi yépp ñépp nag amul tarixa bi amul diine bi ci ay yóbbante yoo xam ne yegsi na ci man waaye ma doore ci li may wax li nga xam ne mooy li ci ëpp solo mooy ñi nga xam ne damay liggéey ñoom ñuy samay avocat parce que dossier bi nag dossier politique la téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi la waaye am na ñaar fukk yoo xam ne ci yoon la la ca war ci politique nag mooy li ñu def ba tey jii la ca war ci yoon mooy li ñuy liggéey ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci loolu muy suñu avocat toog nañu waxtaan ak ñoom ci ñaari réunion yu gudd gudd gudd muy dimaas bi passé ak tey jii ma déglu leen bu baax a baax a baax a baax loolu ñépp ñu ànd ak ñun képp ko ànd ak ñun dama bëgg loolu nga boole ko ci li war a tax tey ñu orienté suñu xeex ca la ñu waxtaan la ñu jàpp mooy benn dossier bi ñu tax bi leen tax a jóg ñu ne dossier siif la dossier boobu dara newu ci dossier boobu juge ak nu mu jeng jeng jeng jeng bu ñëwee ba ci biir lépp dina feeñ wala lépp feeñ na ba noppi sax amul juge boo xam ne war naa mën a ne lii dinaa ci condamné nit loolu dàqantewul nag ak li ma wax bi may ubbi ni man wóoluwuma suñu justice waaye wóolu naa ay magistra yoo xam ne dañ leen ni tànn ci biir waaye ñii suñu bëggee def seen yëfu salte depuis procureur moom tuddatuma ay touram comme mi ngi topato sama ba ci topato sama bir ménage di wo ay nit di wax lu jëm ci sama bir ménage procureur bobu mënatul assurer ben garantie ni procureur de la république la yakamti gumu yakamti won xam nga gaynde gu xif yakamti gumu yakamti won jot ci Ousmane Sonko mo andi vice de procédure yi am ci dossier bi yépp wala bukki bopp ndax sa jox wax ko gaynde sax day rëy waaye procureur boobu ba ci lañuy tànn ci juge d'instruction ba la ñuy tànn ci juge yu war a àtte état walla Macky Sall ak ay ñooñam bu ñu yëkkatee ab dossier loolu yëpp dañ ciy tànn ñu leen fay toogal ba defal leen li ñu bëgg a def moo tax dama ne lii ma wax ni dàkkantew dàkkantul dàkkantewul ak li ma njëkk a wax waaye ñu dellu si dossier bi ñoom li ñu jàpp mooy dossier bi dossier bu vide la dara newu ci te li Sénégalais yi gisagum yépp jëm na ci côté boobu comme am dossier bi dara newu ci ñun am na benn piège bu ñu war a moytu benn ndëgg sërëxal mooy ñu may leen fu ñu créer beneen dossier ci biir dossier bi parce que loolu mooy seen bëbët yépp nag tey xam nañ ni dossier bi yëkkati nañ ko defe naa mujj naa diis ci ñoom suñ ko mënoon yebbee yebbeeku yebbee ko waaye dañoo ñëg ànd ak jàpp nañ ni bu leen biir rëccee dootuñu am fu ñu mën a jàppee Ousmane Sonko moo tax ñu continuer li ñuy def lañu gis ñoom mooy buñ leen may fu ñu créer dossier ci biir dossier loolu mooy lan mooy tey bu ñu nee demuñu uyu ji def nañ ko benn yoon xeex ak ñoom yàlla am lu ñu ci may nun xeexuñoo ak ñoom ndax sama kër gi génnuma fi waaye ñi nga xam ne sopp nañ ñu te kenn joxu leen moo d'ordre ñoo jóg ma ñoo ne bërët jóg ne ñun ñëpp nañu daje ji kër Ousmane Sonko gis nañ lundi 8 li fi xewoon waaye tey bu ma dellu siwaatee ne dew ma ñu jël seen arme yépp yónni ko fii la ñuy njëkk a def ma leeral ko ci bopp Sénégal yépp mooy ne dinañ ko kole li ñuy tuddee dé rébellion rébellion mooy koo xam ne juge da la yónni convocation nga ne dew ma ñàkk dem nga ci jëm jëmm ji ne dew ma loolu du déli waaye bu ñu yónnee seen armée ne dem leen jël ko foo jaar même soo nee defuma benn résistance ñu fexe ba créer un peu de violence bu ñu wëlbati koo dem né dafa doon résister donc nañ ko coller rébellion bu boobaa nag lañ doon ut ci dossier bu njëkk ba te mënuñu ko am dinañ ko gaaw a am fii ndax flagrant délit lañ lay yóbbu àtte la def 6 mois daal di takkal sa casier hier. na kon xeex bi lélé dang ci bolé xel ndax ñom buñuy def sen deug dëgg sërëxal du doon benn dañ koy tal dañ koy lal ne bu rëccee ci biir dañu fexe ba am ko ci bii loolu nag mun naa ne door nañ ko may wax Sénégal yépp nag nii jamono ji ñu toog tembe gannaaw dossier bii ñu tudd muy dossier siif ubbi nañu beneen dossier boo xam ne nee nañu appel à l'insurrection mooy dañoo woote fippu fii kenn mus fee woote fippu dañu ne ba ñoo buggee jaay doole ci loo xam ne suñu àq la constitution may nañu ko danañu bañ ñu nit ba fu ñu suñu doole yam loolu kenn mënu cee attaqué kenn au contraire ñoom ñoo def li ñuy wax délit de provocation waaye tey jii ci premier cabinet bu Samba Sall ubbi nañ fa dossier bu ñu tuddee noonu ne dafa dañoo woote fippu ci dossier boobu la jàppee ñaar fukk ak ñett ci suñuy ndaw ba tey ji ñu ngi ñu ngi euh, euh, Cap Manuel waaye bu ñu jàppee ñaar fukk ak ñett yooyu ba noppi dañu ne am na keneen koo xam ne dugalaguñ ko ñu tuddee ko x x dellusi na may wax sénégalais yëpp nag x boobu lañ ca jublu ñoom mooy Ousmane Sonko xam nañu seen dossier bi du sotti lañ ca jublu mooy wëlbatikuwaat gannaaw luy xew ci fan yii ci huitième euh, juge huitième cabinet bu dee lañu ñu bëgg a def sotti na te ñu am ci la bëgg ñu gaawantu yokk ci bii ne egsi buñ doon wër moom la ndax moo woo xale yi ne leen génn leen kon ñépp nañu xam ni seen pexe yemul ci benn pexe yi dañ koo lal beneen ñetteel bi ñu doon waajal mooy suñu ne Ousmane Sonko nee na du dem ñu indi fi GIGN wala BIP fexe ba jaxasi affaire yi bu ñu génnee nag ne dafa doon résister moo tax dañ ko yokkal délit rébellion jugé ko flagrander yi dem tëj ko teyit toujours ci gis-gisu avocat yi mooy dem ak ñàkk dem benn résultat bi la mooy boo demul it dañ fi yónni armée ñi fi nekk dinañu résister peut-être wala suñu résister wul xale yi dinañ jóge fële résister deret dina tuuru waaye yàgg yàgg yàgg da nga dem kon pour bañ leen may porox ndoll yooyu nga xam ne mun nañ ci jaar pour génne leneen loo xam ne loolu day yomb ci ñoom ni dossier bi jafe ci ñoom moo tax avocat yooyu ñoom ñépp bi ñu dajee ñëw taxaw ñaan ñu

maître Demba Ciré Bathily maître Youssouf Camara maître Joseph John maître Bamba Cissé maître Ousseynou Ngom maître Ndumbe Wan ak maître Djibi Diagne waaye it di remercier ñi nga xam toujours ci avocat yooyu bokk ci dossier bi waaye gën a sonn ci suñu ndaw yi nga xam ne nañ leen suñu jigéen yi nga xam ne nañ leen am nañ lu mat 53 muy juróom fukk ak ñett yoo xam ne ñi ngi ci loxo Macky Sall ñooñu maître Amadou Sow maître Babacar Ndiaye maître Abdoulaye Tall maître Théophile Kayosi maître sima Simel Bass ak maître Magna Silva ma leen ni jaajëfal ci sama tur ci turu parti bi waaye ci turu sénégalais yépp mbokk yi gannaaw bi ma waxee li nga xam ne mooy taxawaay avocat yi ma dolli ci ni ñëpp intervenir nañu wax naa leen di parti politique opposition yi daje ñoom ñëpp fii ñëw ñaan ñu ko wax naa leen li nga xam ne mooy suñu kilifa diine yi ndax ñoom dañu wax ni ay régulateurs sociaux lañu wax naa ko keroog ñu bëri nañ naan nañu génn wax waaye am na fu ñuy waxee fu nit yéegut te it ormal seen bopp ñun ñu ñëwaat ormal leen moo tax li olof naan ku ndëbin yee rey sa maam bu dee da ngay ñaanoon démb ñaan barki démb dégluwuñ la balaa ngay génnaat di wax di nga xool lu bëri waaye yónnee nañu ci ñun ñoom ñëpp daje mu jaar ci suñu sëriñ sëñ Abdou Mbàkke bu Daaru Muxti daa di ñëw wax la même chose may wax nit société civile bi def nañu la même chose suñu parti bi ñu bokk def nañu concertation département yëpp ñu laaj leen lu ñu xalaat Euh, diaspora bi ñu daaj leen lu xalaat bureau politique bi wax li mu xalaat ay avila yoo xam ne lu partagé la waaye li ëpp ci avis am benn boor bu ñu jëm dinaa ci ñëw léegi ñii ñëpp nag li ma ci gën a touché man muy kilifa diine muy société civile muy keneen gannaaw bi ñu amee yitte ci réew mi lij li ma gën a touché mooy seen yitte bi gën a rey mooy li tubaab di wax sama intégrité physique mooy ñu bañ a maye fu ñu mun a jaare pour li ñu bëggoon am ci justice sax boo moytul ñu amee ko ci neneen ndax dégg nañ fi kaawu Xaadim Buso dégg nañ fa yeneen kaa te ci loo xam ne mën nañu gañe combat bi ci neneen ñooñu yépp ma leen seen yitte ci ñun yéeg nañ ko te dafa wane ni projet bi nga xam ne moom lañu ñu présenté yi ñor na leen projet boobu seen projet la lii lépp nag moo tax ba ñu waxtaanee déglu ñépp ñu wax sénégalais yi ni bu soobee yàlla ëllëg ca waxtu biñ ko waxee dinañu génnee fii suñu kër dox ndànk dem déglu lan la juge huitième cabinet war a wax ak nun waaye le tekkiwul ni dañoo deltu gannaaw xex bi commencé gul sax te ni mobilisation bi bi exceptionnelle bi nga xamné amna Sénégal te ñu gëjoon ko gis dina la mobilisation ni bëri la mobilisation wara gëna am doolé la militants yi ak militantes yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi nga xamné ñëpp rek parce que bu ñu buggee jaarale mbir mi feneen dina am neneen nu muy demee te it tekkiwul ni li ñu waxoon ni suñu droit ñun à la résistance suñu droit individuel constitutionnel jóge na fi waaye tekkiwul ni lii nga xam ne am na ci dossier bi yépp te avocat yi wax ko député yi wax ko ba suba député yi nañu déposer recours conseil constitutionnel ñu wara a signe nañu loolu lépp duñ ko bàyyi mu jaas parce que lañ ca war a def ci yoon danañ ko def muy fii muy CEDEAO muy feneen ak feneen may woo nag sénégalais yi ndax duma ko wax ak Macky ndax ku am xol am yéeg yéeg ngay waxal ci lu jëm ci lu jëm ci nit ñi ñii nga xam ne jaay nañ leen doole muy suñu otage politique yi ne sénégalais yëpp àddu na leen Macky Sall bàyyi rawatina nag ñi nga xam ne jigéen lañu tey jii dañoo fas yéene woon demare grève de la faim ndax ñu ngi leen di pamti pamti ku ñu jàpp àjjuma ba tey yóbbu leen delloosiwaat leen yóbbu leen delloosiwaat leen déglu sax defu ñu defuñu leen ko lépp pour métital lépp pour métital loolu taal na ay réew yu bëri parce que jaay doole ci anam yi baaxul man maa leen ñaan leen bu leen grève de la faim ndax dama bokk jàpp ni bokkul. ak suñu gëm-gëm waaye li gën a garaaw mooy ku toll ci xeex da ngaa soxla sa doole waroo affaiblir sa bopp te am naa ñëwante bu rëy ci ñoom nag ndax dama koy natt ci sama bopp moo tax ma ñaan leen ko waaye du lu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu bëgg a génne ci xeex bi may wax tamit suñu police nationale wax naa ko keroog ci sama discours police bi ñun ñëpp la fi nekkal am na lu xew fii keroog sama kër te duñ ko bàyyi ndax def naa def nañu lettre démenti retiré waat ko lu toll police nationale ñu war a jël jumtukaay yoo xam ne tey waroon nañ ko yóbbu ci xool ni ñuy xeexee sàmba booy yi ni ñuy xeexee terroriste yi ñu ñëw teg ko ci buntu kër Ousmane Sonko di ko espionné di ko filmer moom ak ay njabootam ak képp ku dugg ci kër gi ak ku génn ci kër gi loolu rafetul ci Sénégal té du kenn ku len yoni kudul Macky Sall ci dossier bo xamné ne nañu dossier privé la bi lolou amé ba nañ ñu dañuy ñëw par force dugu ci kër gi parce que dañoo am jumtu kay buñu ñak buñu buñu buñu wacc fi kérok te il faut ñu jot ko bi ñëwee fi nee len gisunu jumtu kay bobu lolou doyul yónnee nañu ay médiation waye batay ñi ngi ci lolou ñun nag dinañu constater par du d'huissier su jaree ñu porter plainte police nationale dañ ko def xam naa ni police nationale wax naa ko keroog ay patriotes ñoo ci nekk ñoo ci ëpp waaye les grade de la police laay wax bu leen nangu ñu joué loo leen rôle boobu compétition politique c'est entre les acteurs politiques suñuy jumtuwaay réew bu ñu ko jël di ko boole ci compétition politique day andi compétition déloyale Macky yor police yor gendarmerie yor lépp war a jàmmal ñoo xam ne seen parti rek dañu yor ak seen discours loolu rafetul ci réew mi la tax nag ñuy insister ñoom xam nañu ñun xam nañu buñ ñu wax loo ngir yàlla waaye loolu dafa doy nañu bàyyi di utiliser moyen état bi di espionner ay citoyen tey amul benn citoyen sénégalais boo xam ne yaa ngi ci sécurité ñépp yi mu ngi leen di espionner ñépp nag waxuma la sax ku ne ànduma ak moom waaye ñi mu àndal sax mu ngi leen di espionner ba kañ dañ koo dénk lii pour mu tabax réew mi na yem ca loola di wax tamit ni Sénégal amul kenn koo xam ne tey umpale nga umpale nga ni lii complot la ak manipulation médiatique bi ñu def yépp chargé plateau yi lu ne ñu wax ko tey soo jëlee sénégalais téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nee nañ la lii complot la te bu nekk nag yàlla tojal leen lu bees loo xam ne foogewuñ ko woon ba tey ku déglu live Pape Alé bi keroog bi may wax junj naa ne laaj leen Macky Sall ndax xam na aji Sarr seede bi tey ñëw na ndax xam na ko moom Macky Sall ndax recevoir na ko en tout cas génn ci gémmiñu Adji Sarr ni moom Macky Sall recevoir na ko te benn autorité APR moo ko fa yóbbu ci lim leen wax moom mi ne moom amul temps comploté ma wax Sénégalais yëpp ni ki ngeen dénk réew mi mu ne mooy président la République ci day wàcc ba ci caniveau yi di comploter contre ses adversaires politiques ci nu mu gën a ñaawe loolu fës na tey fi may daanelee nag mbokk yi mooy di gën a soññ yéen ñëpp ma leen gën a soññ xeex bii ñun de mun nañ ci ñàkk ay dunq waaye Macky dina ci ñàkk nguuram ci nii wala ci nële dugg na ci loo xam amul tey benn sénégalais bu ko nangu wala bu ko rafetlu amul kon lu ñuy xeex la ba fu xeex bi yem waaye xeex bi nañu xam ni ay temps la xeex bi ay stratégie la xeex bi dafa am fu mu jotee foo xam ne lu mu laaj rek ñu xam ne lii la laaj moo tax ma ne mobilisation mobilisation mobilisation mooy nañu takku nañu takku nañu takku fu ñu doon nekk benn nañ fa doon téeméer fu ñu fa doon nekk benn ci mobilisation nañ fa doon téeméer di gërëm nag mouvement citoyen yi également ñi nga xam ne ñëw nañu muy ay FRAPP Y'en a marre euh, euh, docteur Babacar Diop FDS ak euh, Doyna ak Ñoo Lank tous ces mouvements citoyens parti politique yi nga xam ne jël nañ seen initiative ba démb am nañu ci def conférence de presse ñoom docteur Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Bamba Dièye ñoom euh, euh, Bougane ñëpp ak ñi vraiment tous les partis politiques suma ma rek ñi taxawoon assemblée nationale lu ne dacc ci lu ne dacc ko ci ñom ñëpp nag député opposition yi ñom ñëpp ñu ngi leen gëreum né ne nag mobilisation bi ça ne fait que commencer mbokk yi li la bëggoon andi ci sama déclaration diko faram-fàccee ci français ci numu gëna gën euh, Dadi euh, chers compatriotes euh, je me permets de m'adresser une fois de plus à vous pour vous édifier sur ma position par rapport à la situation actuelle. Je commencerai par rappeler les sages recommandations d'un ami que j'ai à recevoir ici et qui m'a donné deux recommandations dans les circonstances actuelles, tous ceux qui te diront de te taire et de ne pas parler ne sont pas avec toi. Mais tous ceux également qui te recommanderont de faire confiance à la justice ne sont pas avec toi. Il a parfaitement raison. Il faut communiquer pour édifier l'opinion à chaque fois que nécessaire. Il faut communiquer parce que ceux qui sont avec nous, ceux qui nous suivent, mais l'opinion a besoin d'avoir des arguments. Chacun fera l'interprétation qu'il veut, le traitement qu'il veut, mais il faut communiquer, mais ne pas laisser communiquer à votre place, particulièrement la contre-communication. Il a raison parce que nous savons de quelle justice on parle dans ce pays. Et il est exceptionnel, pour ne pas dire, on n'a jamais vu un dossier politique tranché par la justice dans, le sens, dans un sens différent euh, de celui de, du vouloir du prince, quel que soit le prince qui est là, mais en l'occurrence aujourd'hui, M. Macky Sall. Nous ne croyons pas à cette justice, mais nous croyons à certains magistrats. Il y a des magistrats sérieux, compétents, qui font correctement leur travail. Mais il est évident que lorsque le tenant du pouvoir entreprend un complot de cette nature, il s'assure de placer sur toute la chaîne judiciaire des gens capables de lui faire le sale boulot. Quelle que soit la qualité de votre dossier par ailleurs, je voudrais dire à tous les Sénégalais, ça transcende les militants de PASSEF. Parce que ceux qui sont mobilisés le lundi 8 ici ne sont pas seulement les militants de PASSEF. C'est le Sénégalais lambda c'est le Sénégalais qui n'appartient à aucun parti politique. C'est le Sénégalais de tel ou tel autre parti politique d'opposition. C'est le Sénégalais de la société civile. C'est le Sénégalais de, des mouvements citoyens. C'est même le Sénégalais religieux. Tous ceux qui détestent et combattent l'injustice ont fait ce mouvement spontané pour venir dire non à cette injustice. Et cette, cette posture que vous avez adoptée nous a permis de gagner énormément de temps. Cette posture que, vous avez adoptée nous a permis d'être là aujourd'hui à continuer à édifier les Sénégalais. Je vous en remercie énormément. Cette posture nous a permis de gagner la première manche. Parce que n'eût été votre engagement, votre détermination, mais votre mouvement spontané de ce jour, je n'aurais jamais eu la latitude et le temps qu'il fallait pour communiquer avec les Sénégalais et pour démontrer le complot. Je vous remercie pour cela. Quelle démarche devons-nous tous adopter à partir de, maintenant Quelle stratégie devons-nous adopter à partir de maintenant C'est ça l'objet de cette présente déclaration de presse. Pour définir cette attitude, il faut partir de l'analyse de l'objectif recherché, la définition de l'objectif recherché par notre vis-à-vis. vis à vis par notre adversaire, qui, par endroits, se transforme même en un ennemi. Quel est l'objectif de Macky Sall dans tout cela Macky Sall a un objectif principal, c'est de radier Ousmane Sonko des listes électorales et d'éviter, de l'empêcher en tout cas, de pouvoir se présenter à toute élection à venir, mais particulièrement et singulièrement à l'élection présidentielle de 2024. Il a des raisons de le faire puisqu'il a tous les sondages, il a les services de renseignement qui lui donnent tous les renseignements qu'il faut. Il sait pourquoi, impérativement, il lui faut se débarrasser de cet adversaire. Et justement, la tournure qu'a prise cette affaire, la démonstration de force qui a été euh, faite par vous tous, chers compatriotes, le renforce dans sa crainte qu'il a en face de lui un adversaire qui s'il se présente à une élection en 2024, et même s'il se présente euh, dans des listes euh, dans, pour les prochaines élections locales et législatives, est un adversaire qui pourrait facilement le battre. Et c'est pourquoi il faut qu'on comprenne tous que, quelle que soit la situation, et malgré l'évidence qui s'est faite aux yeux de tous les Sénégalais d'un complot ignoble, Macky Sall ne reculera pas parce qu'il considère que s'il rate cette occasion, de se débarrasser de cet adversaire. Il n'en aura plus d'autres pour euh, euh, se rattraper. Alors, ça, c'est son objectif principal, qui est adossé à un objectif secondaire, celui-là de jeter l'opprobre, de jeter le discrédit sur l'image de, cet euh, opposant, de cet adversaire, en l'occurrence Ousmane Sonko. Il faut bien qu'on campe cela, chers compatriotes. Parce que ça va nous permettre de définir notre stratégie dans ce combat. Parce qu'il n'est pas question, n'est absolument pas question que Macky Sall puisse atteindre cet objectif. Il n'est pas question que nous lui permettions allègrement, librement, euh, mais sans aucune résistance, que nous lui permettions de pouvoir écarter les adversaires politiques comme il, à son gré. C'est aujourd'hui cela qui doit orienter, guider toutes les actions que nous allons poser à partir de maintenant. Et c'est pourquoi j'ai écouté tout le monde. J'avoue que depuis trois jours, je n'ai cessé de recevoir, du matin à la nuit. Je n'ai cessé de communiquer, d'écouter les gens au téléphone. Tous les segments de la société ont eu à m'interpeller d'une manière ou d'une autre par rapport à la situation que nous vivons. Mais je commencerai par la position la plus centrale, la plus importante dans ce genre de situation. Parce que nous avons un dossier, certes, à 80 ou 90% politique, mais qui peut être à 20 ou 10% judiciaire. Et quand on parle d'un dossier judiciaire, on parle d'avocats parce que c'est les hommes de l'art, c'est les hommes du métier. Et c'est pourquoi je me suis permis de m'entourer, avec le soutien de tous les Sénégalais, d'avocats euh, rompu à la tâche. Et quand on prend des conseils, on les écoute. Nous avons tenu deux longues réunions ici, dans cette salle même, avec ces avocats, le dimanche passé et aujourd'hui même. La position de ces avocats, c'est de dire, un, nous avons un bon dossier de viol qui sera facilement démontable devant toute juridiction. Ce que je dis là n'est pas contradictoire avec les propos de l'introduction, c'est de dire que nous ne faisons pas confiance à la justice. Mais ça ne nous empêche pas de dire, quand des avocats se saisissent d'un dossier et l'examinent, de dire que nous avons un bon dossier. Et que nous pouvons nous battre sur ce dossier. Malgré tous les vices, je n'ai pas besoin d'énumérer tous les vices, ça a fait l'objet de tellement de débats euh, les députés en ont parlé, les avocats en ont parlé, les professeurs de droit en ont parlé. Nous avons suivi les plateaux. Beaucoup de tentatives de manipulation et de détournement, mais par la grâce de Dieu, les gens ont pu démontrer tous les vices qui existent depuis la lettre du juge d'instruction jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire et même la convocation qui n'a pas attendu le délai minimum, minimal, euh, minimum prévu dans ce cas d'espèce pour euh, permettre éventuellement des recours. Ce recours que feront d'ailleurs demain euh, les députés de l'opposition qui ont déjà préparé le texte et qui ont eu les, les, les, les signatures qu'il faut. Mais nous continuerons à, à, à, à nous battre contre ces vices et tous les recours qui devront être faits au niveau national comme international seront faits par les avocats. Donc, premièrement, la vacuité du dossier. Deuxièmement, quand on a un dossier bon, il ne faut pas donner à l'adversaire la possibilité de créer des dossiers dans le dossier. C'est ça qui est recherché. Et que si je ne déférais pas la convocation demain, la conséquence logique, c'est un mandat d'amener, peut-être, mais l'armée qui sera envoyée pour venir ici peut trouver une résistance, même si moi je ne résiste pas. Mais, aujourd'hui, les Sénégalais se sont appropriés cela. Je n'avais pas appelé le 8 pour que les gens sortent, mais ils sont sortis spontanément. Et avec la moindre résistance, ou même en l'absence de résistance, ils vont la fomenter. Ils pourront sortir pour nous mettre sur le dos un autre délit, c'est-à-dire la rébellion. Et ça, c'est un jugement direct en flagrant délit, une condamnation à six mois, et le cas judiciaire est complètement euh, euh, Sali. Et c'est ça l'objectif recherché, je l'ai dit. Et donc, dans nos stratégies, ce ne serait pas intelligent de leur offrir cette opportunité. Je tiens à dire à tous les Sénégalais, parce qu'il nous faut être vigilants. Nous avons en face de nous des malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Et qui, dans sa stratégie, développe plusieurs pièges en même temps. En se disant que s'il échappe à celui-là, il tombera dans, tel autre piège. Et l'autre piège, je peux vous dire à tous que, au moins je vous parle, le juge d'instruction du premier cabinet, du premier cabinet, M. Sambassal, à la suite des, manifestations du 8 février, il y a eu un, pas mal d'arrestations. Aujourd'hui, on a 23 jeunes à Dakar et 13 à Ziguinchor qui ont été interpellés. Et le délit, le motif qu'on leur a collé, c'est, entre autres, à part association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, ils leur ont mis appel à l'insurrection. Ils ont mis les 23 plus X. Et à Ziguinchor, ils ont mis les 13 plus X. Et depuis lors, nos avocats font le pied de grue pour que ces jeunes soient entendus. Le juge du premier cabinet refuse parce que qu'est-ce qu'il attend Il attend que la procédure concernant Ousmane Sonko soit déclenchée pour qu'ensuite on dise que X est Ousmane Sonko. Et à partir de ce moment, ce dossier de viol, qui est un dossier vide, sera remplacé par un dossier sur l'appel à l'insurrection. C'est pourquoi ils ont fomenté dans une certaine presse tout un débat sur l'appel à l'insurrection depuis quelques jours. Il nous faut être vigilants et il nous faut être prêts à faire face à ce nouveau forfait, en tout cas cet éventuel forfait qui viserait à rattraper le coup puisqu'ils l'ont raté avec le, complot ignoble de Macky Sall. Donc, puisque y aller demain et ne pas y aller, le résultat sera le même au finish, parce que nous pouvons résister éventuellement, mais nous ne pouvons pas résister ad vitam aeternam à toute une gendarmerie, toute une police et toute une armée. En tout cas de cause, la raison voudrait qu'on aille répondre demain. C'est ça la position des avocats. Je me permettrai de remercier tous ces avocats. J'y tiens particulièrement parce que j'ai travaillé avec eux depuis plusieurs jours et je sais tous les sacrifices qu'ils consentent pour défendre ce dossier, pour y travailler, pour préparer tout ce qu'il faut préparer. Il s'agit de Maître Massokhna Nakan, Maître Siré Redorli, Maître Siba, maître Demba Bachili, maître Youssouf Kamara, maître Joseph Etienne John, maître Bamba maître Ousse Nungom, maître Ndoumbe Wan, maître Djibi maître Amadou Sow maître Baba Ndiaye maître Abdoulaye maître Théophile Kayosi maître Michel Michel Simel Bass maître Mania Silva ceux qui travaillent quotidiennement dans le dossier principal qui nous concerne comme ceux qui se sont donné les moyens d'être présents à chaque fois qu'un militant ou une militante est arrêté, à chaque fois que quelqu'un est, même ceux qui ne sont pas nos militants et qui nous soutiennent, je veux parler des Guy Marissagna, des Damboj, euh, des Clédorsen, tous ces gens-là, à chaque fois qu'il y a une arrestation, ces avocats sont donnés les moyens d'être présents pour qu'on ne les entraîne pas dans euh, des déclarations qui pourraient se retourner contre eux. À part les avocats, toutes les autorités de ce pays, tous les segments. J'ai parlé des autorités religieuses. J'ai reçu toutes sortes de délégations ici dans, cette salle. La dernière en date, c'est la délégation conduite par Djamra de Mamatar Gueye, Abbé Jacques Sec et beaucoup d'autres religieux. J'ai reçu des interpellations, des gens qui ont été envoyés par ces guides religieux, qui ont conclu tous à la même demande euh, non pas seulement pour l'apaisement, puisque l'apaisement ne dépend pas de nous, je le précise encore, ça dépend particulièrement de Macky Sall et de ses comploteurs, mais qui se sont souciés, et cela m'a touché au plus profond de moi, ils se sont souciés de mon intégrité physique, de mon intégrité morale, ce qui les a amenés à exprimer leurs demandes. Je les en remercie. Les partis politiques d'opposition J'en ai reçu ici hier, dans le cadre du FRN. La société civile, le dernier qui est sorti d'ici, est M. Aluntine. Et un nombre incalculable de citoyens de tous bords qui m'ont interpellé depuis trois jours pour insister et nous demander euh, d'aller dans un sens. Notre propre famille, mais notre parti politique, qui a ouvert depuis hier de larges concertations avec les 45 départements, la diaspora et le bureau politique. Il peut y avoir encore des réticences, mais l'écrasante majorité est allée dans un sens. Tous, en tout cas, ont compris que à chaque étape de ce combat, il nous faut adapter une stratégie. Et c'est l'ensemble de ces recommandations qui nous ont permis d'aboutir à la décision que j'annonce que demain, à l'heure euh, continue dans la convocation, nous irons répondre, écouter le juge du premier cabinet. Mais cela ne veut absolument pas dire une abdication. Et j'appelle tout le monde à rester mobilisé parce que nous n'accepterons, mais absolument pas, aucune injustice, aucun forfait, aucune forfaiture par rapport à la gestion de ce dossier. Je dirais également je continuerai les appels en appelant toutes les composantes de la nation. Et en première, les femmes. Les femmes, parce que 17 femmes aujourd'hui sont retenues par Macky Sall. 17 femmes qui n'ont rien, absolument rien fait, si ce n'est de se déplacer pour se rendre au domicile de Macky Sall. 17 femmes depuis 4 jours maintenant. Depuis 6 jours maintenant sont retenus et malmenés. On leur refuse même d'avoir des draps ou qu'on leur amène des petits lits. Elles dorment à même le sol, les carreaux, là-bas au commissariat de Dieppel. Et depuis deux jours ou trois jours, elles sont ballottées entre le tribunal et le commissariat de Dieppel avec des euh, retours, retours, de parquet. Cela, ce n'est pas de la justice. Serigne Bassirou le fait sur prescription de Macky Sall uniquement pour faire mal à des adversaires politiques. Antoine Diom le fait uniquement pour essayer de régler des comptes parce qu'on interdit même les visites. Moi, je me suis déplacé le vendredi pour le rendre visite là-bas au commissariat de Diopel. On m'a interdit l'accès aux locaux. Des députés, les Mamdiara femmes, les Aïssata Sabara se sont rendus là-bas, on leur a interdit l'accès aux locaux. Cela est inadmissible. Et j'en appelle à tous les segments de la société. Je ne parlerai pas de Macky Sall, parce qu'il faut avoir un cœur pour qu'on puisse vous interpeller. Je parle à tous les segments de la société. Ce qui se passe est inadmissible. J'interpelle notre police nationale. Quand on dit nationale, ça veut dire que ça appartient à la nation. Ça appartient aux 16 millions de Sénégalais. Chacun de nous a les mêmes devoirs. La police n'est pas rémunérée par Macky Sall, elle est rémunérée par nos impôts. Elle doit rester à équidistance. Ce qui s'est passé ici, à mon domicile, le jeudi passé, est inadmissible. C'est-à-dire qu'on déploie des moyens les plus sophistiqués de l'État pour venir espionner un adversaire politique. Je maintiens mes accusations contre la police nationale. Et on en a les preuves et ils le savent. On en a les preuves, ils le savent, parce qu'on a les enregistrements, on a les vidéos, on a tout ce qui a été filmé ici. Que cette police nationale puisse se déplacer pour venir espionner un adversaire politique, mettre ici une fourgonnette qui filme 24 heures sur 24 ce qui se passe dans ma maison et qui intercepte tous les sons émis à partir de cette maison, c'est inadmissible. Et ça, c'est Macky Sall. On, est, on a accusé un, un, recul extraordinaire dans ce pays avec Macky Sall. Et s'il y a un Sénégalais qui pense qu'il peut échapper à ça, s'il y a un Sénégalais qui ne se sent pas concerné, c'est qu'il se trompe. Tous les Sénégalais sont en danger parce que tous ceux qui diront que je ne réfléchis pas comme Macky Sall, je ne, je n'exprime pas les mêmes opinions que Macky Sall, sont systématiquement écoutés, traqués, piégés, manipulés pour, avoir des ennuis judiciaires. Il faut aujourd'hui que chacun et chacune d'entre nous en soit conscient. Même les guides religieux sont espionnés dans ce pays. Que tout le monde le sache. cela est inadmissible parce que c'est une violation de la Constitution. La propriété privée, les données personnelles. Il y a des lois pour ça. Mais Macky Sall n'en a cure dans cette obsession de se maintenir au pouvoir. Je le, dénonce, je le regrette et nous donnerons les suites qu'il faut parce que depuis des jours, on est harcelé ici. Nous avons été menacés d'une intrusion musclée de la police pour venir récupérer soi-disant un matériel qui serait perdu ici. Nous avons ensuite eu des émissaires qui sont venus négocier. Nous n'avons pas vu de matériel ici, je le dis. S'ils viennent, ils ne trouveront pas de matériel ici parce qu'on n'en a pas vu. Ils n'ont qu'à dire aux Sénégalais quel matériel ils ont pu perdre ici pour continuer à faire cette pression sur nous. C'est inadmissible. L'éclatement du complot, j'en terminerai. Je n'ai plus besoin de donner des éléments. 90% des Sénégalais sont convaincus et conscients que c'est un complot de très bas niveau. Ce qu'ils ne savaient pas ou ce qu'ils ne pouvaient pas établir, c'est jusqu'où il y a la chaîne de responsabilité. On a parlé de la fameuse avocate. Aujourd'hui, on a des preuves supplémentaires de son implication jusqu'au coup dans cette affaire-là. Et de son mari également, qui est ministre dans ce pays-là. On a toutes les preuves de ces implications-là. Et on exigera ce qu'il faudra pour que la justice fasse ce qu'il a à faire, le moment venu. Parce que beaucoup de gens nous disent pourquoi vous n'avez pas contre-attaqué. Après discussion de nos avocats, nous avons considéré que le mois viendra. Parce qu'on ne peut pas leur donner certaines opportunités. Mais les gens ne savaient pas que ça va beaucoup plus loin. Je l'ai dit l'autre jour lors de ma, de ma déclaration, j'ai dit les Sénégalais n'ont qu'à poser une question très simple à Maki. Est-ce qu'il connaît Adjissar Ceux qui ont écouté aujourd'hui le live de Pape Allais et le témoignage y contenu peuvent maintenant répondre eux-mêmes à cette question c'est que Macky Sall aurait reçu même Adji de la bouche de cette dernière, l'aurait reçu parce que celle-là lui a... En réalité, on est dans une grande entreprise de manipulation. au finish, je me dis, est-ce que ce n'est pas les manipulateurs qui ont été manipulés par cette jeune fille Je dis aux Sénégalais, Macky Sall a dit à RFI qu'il n'a pas, il a autre chose à faire que de comploter. Je vous dis qu'il est le comploteur en chef et que c'est lui qui tire les ficelles de bout en bout de cette affaire-là. Enfin, je lancerai ou je relancerai cet appel à la mobilisation de tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Dans ce combat, nous pouvons perdre des plumes, mais qui peut perdre son pouvoir. Tout dépend du peuple sénégalais. Est-ce que ce peuple peut accepter que celui qu'ils ont élu au plus responsabilités de ce pays, à qui ils ont donné tous les moyens, pour transformer leur vécu, pour améliorer leur vécu, passe l'essentiel de son temps à espionner, à comploter contre ses adversaires politiques. Est-ce qu'ils peuvent accepter que la seule règle qu'ils connaissent par rapport à la conservation du pouvoir, ce n'est pas la règle de la confrontation des opinions et des idées, la confrontation des programmes dans le cadre d'élections libres et démocratiques, mais la seule règle qu'il connaît, c'est la règle du complot pour liquider les adversaires politiques. Est-ce que les Sénégalais vont continuer à accepter ça S'il si il euh, parvient à, ses fins avec Ousmane Sonko, est-ce que les Sénégalais peuvent accepter un pays sans opposition Si chacun, ceux qui ne se sentent pas concernés, qu'ils ne reviennent pas demain après pleurer, lorsqu'il aura éliminé toute opposition, il déroulera en en roue libre et il instaurera une dictature totale et totalitaire. C'est ça qui se joue actuellement et cela interpelle chacun et chacune des Sénégalais. Ceux qui étaient déjà dans la mobilisation, renforcez cette mobilisation. Ceux qui n'y étaient pas, rejoignez cette mobilisation parce que nous avons un combat à gagner et ce combat, c'est le combat pour le Sénégal, c'est le combat pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas un combat pour Ousmane Sonko. Je vous remercie.